bi nii yettin di ko jagleel réew mi nekk dëgg yàlla mu weex tal ñëw ban ci diggante ma ko sa mer mu koy tere loolu moo waral Ahmadou ci xol bi leneen da caa xajul fu def ko ci yaa yàq sa xol ndax mënta toog a siñ see xaw bàll ci kaw fu mu toogee day taxaw tiim ñu maam Thierno Borom Daaru daan def ak man noonu la daan def ak siñ see xaw bàll na ñëw ma ñëw bu bàyyi seet xat mënoon na dem toog fee ci ay mbokkam waaye bi ñu xamee ni moo leen jëwriñ ñi Hmm? nii nii la borom daaru daan def te itam nag wax dëgg yàlla nekku fi waaye xol ba ak xel ni mi ngi fi ndax man maa leen dig nii man maa ko ni sukóori boobu lépp dina la fa fekk yóbbu fa boppam bàyyi baa ko fa yóbbu léegi nag fa nar a fekk nag ci man yii lay jaare ma ñëw dama doon wax ci projet te éggalewu ma ñëw bu ñu nee nation ni état ni chef d'état ni gouvernement gouvernement am programme concerné secteur de développement yépp la am ay projet yu mag gouvernement di ko doxal te mu concerné réew mi yépp citoyen yépp góor jigéen mag ndaw léegi nag da ngay fàtte sa bos waaw sa bos muntaqal tub ma yasurruhu bila fekkente ni juumuma lil muntaqal tub waxoon naa leen ne naa leen ñu jàngate alquran ba gis fu ku tedd kii ñu tuddee yonent bi muntaqa taxaw fa ñaanal seen muntaqa waxoon naa leen waaye bayit bi na ko jéem a man lil muntaqa tub ma yasurruhu ila nihayatin وخدمتي تقبلا foofu la ndar keppee aji gëm ji ak aji jégul ji ak defkatu lu rafet wax fiir li kulli muminin wa mumina wa xudd lahum munan li shukrin mudd mi naa foofu la nga xam ne dafa gëm yàlla ne ko na nga ko jéggal kii nga xamante ne bii dafa gëm moo xam ku góor gi la moo xam ku jigéen gi la waaye léem gëm na la yow yàlla gëm na ni yow yaa bind lu nekk yaa ko bind yaa bind lu nekk léem gëm na la na nga ko jéggal dañoo sax ci di la sant ndax gëm gi ñu la gëm waxfir li kulli muslimin wa muslima wahab lahum minka ridwan wa marhama di ko ki jéblu itam ginnaaw bu nga gëmee ba noppi dafa laa jébbal boppam moom it nanga ko jéggal te nanga ko jox ngërëm lu jóge ci ak sa yërmaane waxfir li kulli muhsinin wa muhsina walahumu awsil mazida hasan ki nga xam daf laa gëm ba noppi jébbal la boppam ba noppi di fas yéenee def lu rafet rek moom na ko defal accès ca fa ñuy doole na nga ko jox accès fa émergence nekk fa ñuy émerger وفي كل محسن ومحسنة وله أوصل مزيد حسنة nañ fa yegg fa ñuy doole مؤمنا مسلما محسنا مؤمنا être croyant soumis bienfaiteur et constant murid wacc maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila kooku mooy muhsin murid boobu nga xam ne moom la ko tedd wan yoon mooy muhsin gaawal baat bi ñuy wax maas ak baat bi ñuy wax muus te mu àgg ba ci xel ma wax nañu tam albaar

Ba radiyallahu anhu ne nekk xalifa mu ko tàngee